الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي خلق الثقلين وأمرهم بعبادته wa farada ala ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam siyaamu sahra ramadan yowman wa baadu assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi nuyoo ca gën jaa tedd nuyoo fi ñu leen daan nuyoo muy ci Leuz TV di dikk ak yéen ci suñu njëlbeenu émission mooy émission bi ñuy wax ak diinu wan nasiha seen mbokk mu leen yéene yiw nekk ci waxukaay bi di leen ko defal ñuy ñaanal boroom kër gi yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko njabootam ak bokk yu baax yi nga xam ne ñoom la bokk ak liggéey bii di yaatal islaam mbokk yi ñu bokkandoo rek waxaat alhamdulilahi rabbil alamin ndax daaw ñoo fi nekkandoo woon ci koor gi cant gi nag dañu koy jëmale ci suñu boroom ndax am na ñu ñu ko defandoo woon ak daaw te yàlla dogal na ren fekku leen fi yàlla yàlla yërëm ñun ñi mu fi fekk li ñu ci jaamu yàlla mu néew mu bari li yàlla ëmb ci koor gi ci barke ak yiw ak teraanga yàlla na ko yàlla dotti ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu dikk ak yéen ci suñu tomb bu njëkk ci ad diinu wan nasiha ci koor li ñu ciy njëkk a wax rek mooy bokk na ci dëgg-dëgg àq ji nga xam ne moo war ci koor diggante jaam bi ak boroom yàlla sant ko ko def ko farata ci moom wax ko ci alquranul karim baada audu billahi min alshaytaani irrajim yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun yàlla wax na ci alquran ne ee ñi gëm yàlla yaa ayyuha alladina amanu su ko yàlla waxee ci alquran ñi mu gën a sopp ci lim bind ñoom la waxak ak ne farataal naa ci yéen koor comme ni ma ko farataalee woon ci xeet yi leen fi jiitu woon mu mel ni dañu ko ne suñu borom bi subhaanahu wa taala loo ci jublu mu ne laallakum tattaquna ngir ngeen amee ca ragal yàlla kon da ngay seetlu ne bu koor gi jeexee beneen farata bi la fi dese muy juróomeelu ponk ci lislaam mooy aj màkka te aj màkka googu bi yàlla rëdd ne nañu ko def la mu waxoon ne bu ñuy dem nañ ko takk boole ko ci suñuy bagage yóbbaale ko mooy wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa yàlla daf ne woon na ngeen yóbbalu su ngeen di ñëw màkk mu mel ni dañ ko laaj ni ko lu ñuy yóbbaloo mu ne yóbbal bi ngeen di yóbbaloo te mu gën ci bagaas yi mooy ragal yàlla te ragal yàlla googu mbokk yi ñu ngi ko mën a jële ci koor kon li ñu mën a jàpp rek mooy koor daal mi ngi noonu ñëwaat naa ki bagaasam di gan goo xam ni bu ñëwee du bàyyee kenn benn bàkkaar di gan goo xam ni bu ñëwee ci la yàlla di xool jaamam ñëppatu yërmande di gan goo xam ni bu ñëwee ci la yàlla di goreel xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci safara yàlla nañ ci bokk ñu war ko waajal nag physiquement waajal ko spirituellement waajal ko financièrement spirituellement bi ni ñu koy waaje mooy xam ni am na lu la yàlla sant nga war ko préparer parce que mayoon na la trois cent soixante cinq jours yoo xam ni trois cent trente cinq yëpp danga ko lekk naan ko def ci yi nga bëgg yépp mu daggal la fanweeri fan yoo xam ne daf ne la na nga ma ci woor jàpp na nga ma ci wooral jàpp ci ci lekk ak naan ak mbooleem yi la dagaloon ci bëccëg bi mu tere la ko moo tax yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala moom kese moo xam li mu yéenee xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koor googu nag waajal physiquement gi nag mooy wér gi yaram parce que yonent bi daf ne woon suumu tasixu woor leen ndax ngeen wér kon liñ ci mën a jàppe mooy koor dana may jaam bi mu mën a wér ndax dañuy wax ne sax lekk gu bari ak naan gu bari ci biiru doom aadama bu yàggee rek mu am jàmboro yu mu jur kon koor dafa ñëw pour réparer yooyu mayaat ñu wér ñu bañ ko waajal nag waajum ndaw kundaa mooy bu koor gi jubsee boo demee ci hôpitaux yi day fees dell ku nekk di wut jàngoro ju bees joo mën a am léeg-léeg nga dégg sax ñoo xam ne dañ koy dóor ci wooru gàll dem ci hôpitaux yi fexe ba gis médecin yi créé jàngoro ju bees tàq sama estomac bi sama ulcère bi yooyu nañu ko jël teg ko nële futtee ko xam ne jàmm yàlla moo fi ne ndax moom li la yàlla sant boo ko deful bés a ngi ñëw buñ la takkee ba dugal ci bàmmeel di nga um koor goo xam ne xamagoo kañ ngay doon kon ñu bañ a def kooru ndaw kundaa rek wooru gàlle yooyu euh, boo génnee lekk ba suur naan ba suur ñëw ci kër gi rey sa bopp wane ne da nga fekk dara du ci dëgg yàlla soxlawul loolu parce que bi mu ñuy defloo daf ñuy defloo li gën a sell ci suñuy jëf moom la yàlla soxla ci liñ koy defal beneen bi ci des mooy am na koo xam ne koor moom li mu ko jàppee mooy day téye boppam ci lekk ak naan yi ci des garaawul déedéet bi nga interdee sa bopp lekk ak naan ba noppi am na yeneen yu la daganoon yu dul lekk ak naan yooyu yàlla def la ci téye yu mel ni sëy yu mel ni yeneen ak yeneen ndax xeet yu njëkk ya am na ci ñoo xam ne seen koor ñoom dañ daan def imsaak imsaak bi mooy dangay ngay ci wax doo wax am na ñoo xam ne du ñu lekk du ñu naan heure ba heure am na ci ñoo xam ne dañu daan wóor guddi ak bëccëg ndax suñu maam aadama alayhi salaam mi njëkk a woor yàlla dafa dogal moom kooram guddi la woon ak bëccëg parce que bàkkaar bu mu woon la war ko sippi yàlla nattoo ko woor fanweeri fan yoo xam ne guddi yi ak bëccëg yëpp daf ko woor euh, kon ñu préparé ko ci noonu beneen préparation bi mooy ñu préparé ko ci tuubal suñu borom xam ne bàkkaar yi ñu nekkoon bari na njuumte yi bari na te li gën a dangereux mooy da dégg semaine dernière semaine bi da dégg ñoo xam ne dañu naan la dañuy tëj saison. waaw saison bi yow ci loo ko ubbi woon mu dikk amuloo dara loo ko tëjee lu dul ne da ngay def yi nga xam ne moom nga ci mënoon a def profito ci occasion bi def ko ba bu koor gi ñëwee nga jàpp ne ci nga war a fóot waaw damaa defe ne xanaa boo jëlee fóotkat tamit mu di la fóotal lu tax nga bàyyi ba fóotkat bi dikk nga jënd saabu teg yëre yi jël huile sotti ko ci yére yi doo ko def kon suñuy tëj saison bi nañ ko tëj ci lu baax ndax am na ci yoo xam ne caaxaan kese la te seytaane daf ciy potoxlu te mbokk yi euh, ñu tuubal yàlla nag war na ci jamono bu nekk waaye ci jamono weeru koor la ko yàlla gën a soxla ñu gën a taxawaat nag ci dimbalante yi nag ndax weeru koor dafa laaj dimbalante yàlla wax na ci alxuraan ne wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuuna laallakum tuflixuun na ngeen tuub en masse tuub goo xam ne duñ ne gone yee def na kilifa yi bañ a tuub déedéet bu fekkee tuub gi jaaru na sax wala boog luñ koy waral la dañu naan mag ñee war a tuub gone yi doog cee topp na ñëpp tuubal yàlla ndax nit mënul ëpp jàmm amul kenn koo xam ne sa mbaax àgg na ci nga jéggi yàlla ba romb jaam ñi déedéet mënul nekk parce que jaam rek ngay doon kon ñu tuubal yàlla ndax yàllaa ñu ko wax nee na suñu bëggee texe mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne yaa ayyuha nnaasu tuubu ila allah fa inni atuubu fi l yowmi miata marra sallallahu alayhi wa sallam yonent na yéen nit ñi dee leen tuubal seen borom subhanahu wa ndax man sallallahu alayhi wa danaa tuubal yàlla bis bu nekk téeméeri yoon kon mbokk yi ñu góor lu ci tuub góor-góorlu ci koor gi sàmmanteeg ak ya ca war dëgg ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man saama ramadaana imaanan wa ihtisaaban gufira lahu ma taqaddama min zanbihi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku woor weeru koor wi taxaw ca taxawaay ba ca war rafetal ko ca nañu la ko sante sa kenn kàttan nee na yàlla jéggal la bàkkaar yi nga jiitaloon bi ngay dugg ci koor gi kon loolu mooy seen émission seen première partie ñu di leen dox jox dig daje ci beneen jataay di ñëw ak yéen ci seen naafila premier jour jële nañ ci Malik mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne koo xam ne julli nga fukki rakka ci bés bi muy guddi gu njëkk gi mu ànd ak juróomi sëlmal ñaari rakk yoo def da toog sëlmal rakk bu nekk nga jàng ca faatihatul kitab benn yoon jàng ca inna anzalnahu fi laylatil qadri ñaari yoon jàng ca qul ya ayyuhal kaafiruuna benn yoon jàng ca qul huwa allahu ahad mu jeex ñaari yoon nee na yàlla dana xaraamal sa yaram safara te amul benn soxla booy laaj sa borom lu dul jox na la ko kon mbokk yi ñu waxaat rek ne yonent bi sallallahu alayhi ñaan yàlla suñuy soxla amul kenn kuy ñaan yàlla te yàlla du nangu sa ñaan imma daf la koy nangul jox la ko ci àddina wala mu nangul la ko dencal la ko ba alaxira wala mu nangul la ko raafal ci lu toll ne ay bàkkaar ci li nga def kon na mbokk yi loolu mooy seen première jataay ci seen émission ak diinu wan nasiha di leen sant di leen gërëm di leen jox dox daje ci beneen jataay wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala